أهلا وسهلا mbokki Sénégal mbokki Diourbel mbokki Touba ak li ko wër xéewal a ngi nii ci biir xéewal yi ñooñu ñooy ñan ñaa ay frère waa kër Serigne Massamba di jaay ay pièces détachées yu automobile ak moto ñu ngi nekkee ci dëkk bu tedd bi di Touba ci ancien garage yu Dakar bi yéen mécaniciens yi wala chauffeur automobile wala moto seen njàqare jeex na seen aajo faju na ci am ay pièces détachées yu mucc ayib mboolem loo soxla ci wàllu pièces détachées yu automobile wala moto am na fi fii ci Niang et Frères waa kër Serigne Massamba am na fi ay motor bépp marque yu ci mel ni Iveco Ford Citroën Fiat wala Peugeot am na fi itam ay xeetu organe yu ci mel ni ay cardan ay fusée ay amortisseur ay embrayage ay lumière ay mètre cylindre ay feu arrière ay pompe à eau ay tixel plateaux ay pont arrière am na fi it ay berceau avant ay triangle arrière. ak yeneen xeeti pièces détachées yoo xam ne nii lu ma lim lim du jeex. li ci gën a neex nag. baax na yomb na garanti na kon nag yéen chauffeurs yi wala mécaniciens yi daw leen gaaw seeti ñaa et waa kër ma Massamba di jaay ay pièces détachées automobile wala moto boo leen demee ay ndaw yu yaru am teggin dinañ leen dalal teral leen taxawu leen ba seen aajo faju ñaa et waa kër ma Massamba di jaay ay pièces détachées yu automobile ak moto gannaaw seen place bi nu am ci ancien garage yu Dakar am nañ beneen itam ci garage bu bees bi lépp nag ngir jàpp ni leen lépp loo soxla ci wàllum pièces détachées yu oto wala moto ci ay njëg yu xewale képp ku leen soxla nag mën nga leen a woo ci numéro yi 77 677 15 01 wala 76 587 46 22 wala 70 785 71 35 wala 76 928 11 65 ñaa et frère waa kër Serigne Massamba ñoo leen di ñaanal jàmm ak xéewal di ñaanal xalif général des Mourides Serigne Touba Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér. ñi di ko roy te di ko xoole Bamba yelantoor yàlla bàyyi fi sëriñ ma sàmm Mbàkke tubaab a daanu wax sama sëriñ nuroon ak Bamba